والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحفل الكريم asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñi ci saal bi ak ñi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy asalaamu aleykum di jiital ci nuyoo bi ci jataay bi koo xam ne buñ ko nuyoo dana yóbbaale ñu bari muy cheikh Mouhamadul Habib cheikh bu cheikh Mouhamad Fadal di nuyu itam El Hadj Serigne mi nga xam ne moo am xalaat bi. jiite liggéey bi di nuyu itam suñu xarit alxaaji abdullahi ja xaadimul quraan ndax xalaat bi ñoom ñaar teel nañ cee déggoo teel cee waxtaan ba fii ñu toll alxaaji abdullahi ñu ngi lay nuyu di nuyu grand prix Sénico bi nga àndal nga xam ne mooy musaabaqa bi jiitu te yàlla bi waxee ci xalima ak la xalima di yuut làmmiñ di ko tudd ci lool a ngeen nekk kon musaabaqa boobu ak bii yëpp benn la muy jàng ak bind dind yu mbooleem ñi nekk ci jataay bi yëpp bàyyiwuñ kenn bala maa ñëw ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy jéem a tënk damay tudd ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci lool yi liggéey bi bu yàgg la bu metti la bu bari ay sew-sew te yombul waaye ji ko séq buñ leen tuddee da ngeen xam ne loolu mënu leen a të ku mel ni sëriñ Mbàkke Abdurahmaan mi ngi nii ci suñu ginnaaw ak sëriñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadud ak sëriñ Saam Mbàkke bi ci sama ndeyjoor sëriñ Moustapha Diop Ndar ci sama càmmooñ sëriñ Mortala Njaay sëriñ Mbàkke Surang sëriñ Xaadim Ñang Aafe sëriñ moxtaar kebe sëriñ daawuda saaxo sëriñ moustapha gay sëriñ amdi moustapha diop sëriñ saaliwu sàll borom boole yi sëriñ ousmane ja ci raniiru ak maam Thierno Wade sëriñ maam Cheikh Ndiaye buñ ñëwee ci jigéen ñi soxna maam Xawa Dem ca Poroxaan ak soxna Marème Jaxate ak soxna Fambay Ñang ak soxna Jóob ñooñu lañu àndal comité scientifique bi di ci liggéey danañ leen wax ni nu doon liggéeyee incha allah ñu ànd lool nag ak jëwriñu liggéey bi muy sëriñ Fàllu Sekk di rakki sëriñ mu boole ñoo moom muy taxaw lépp loo xam ne nii bu amee liggéey bi dana baax muy doomi daara di dongab daara di suñu mbokkum daara kon nii la liggéey bi tëdde bu ñu ñëwee nag ci doxin wi dafa am ay étape muy ay maraaxil xalaat bi bi ko sëriñ amee ba joxe càkkutéefu ñu taxawal ko ci lii li tax mu xalaat ko mooy li ñu bari junji mooy alquraanul karim bu du toon bind deesu jàng te yàlla bi muy wax yonente bi iqra jàngal booba lañ xam ne kon bind mënta ñàkk duñ yàgg ci li tax yonent bi bindutoon lool ñu bari xam nañ ko waaye bind bi ak jàng ñoo ànd exposé bi ñu fi def wane na ne bind yitam yàgg na fi te doon nañ ci taxaw taxawaay bu rëy mu gis nag ne nim yore daara xam ay daara gis na ne léegi tari boo gën a bari bind mbokk yi gone gu jàng alxuraan ba tari kaamil bi te mënta bind faatiha bu ko xoolee sax mënu ko bind ndax loxo bi tàmm ko bu demee ca araab ba di jàng bu demee day metti ci moom lool kon loolu ak yeex la wala ak dellu ginnaaw goo xam ne ci wàllu mbind alxuraan a koy def mu xalaat ne kon nu muy def mooy bu organiser concours bu mel nii ñu yaatal ko ci senegaal joxe ci ay neexal sensibiliser nit ci nit ñi yee leen ci jàngal leen danañ gën a xam ne ndekete alxuraan boo ko bindut genn wàllu alxuraan nga yor boo wëtuwul loolu moo waral xalaat boobu ñu tàmbalee ci étape bu njëkk bi léegi kon lan la ñuy war a def pour concours bi am mooy faaw danañ am benn comité scientifique boo xam ne day teg ay maayir mooy ay nattukaay yi muy évaluer xale yi te yooyu du ko génnee ci xalaatu boppam képp waaye da koy génnee ji ca téerey xam-xam ya yay jàngale loolu ak téerey xam-xam yi nga xam ne yuñ bindoon la ba noppi mu nekk fii ci réew mi ñuy wax xal mahalli loolu bi nga xamee ne am na commission boobu muy ñii ma tudd ñu defaat benn commission boo xam ne mooy communication pour maanaam xamal nit ñi lii nu yor lan la ak organisation ak ñi koy tanzim di ko organise ak finance nga xam ne ñeenti commission yooyu lañ taxawal bi ci njëkk nag moo war a def liggéey boobu mooy léegi nan la ñuy xamee ne diw mii moo dàq bind diw kon dañuy teg ñetti nattukaay wala nattukaay bi day am ñetti tànk benn bu mooy dañ naan ki ciy bokk ci concours bi faaw mu mokkal alquran kuy tari ku ne xam na ne bu gàggee ñu xam waaye kuy bind nan la ñuy xamee ne mokkal na ñu ne kon mokkal gi mënu cee ñàkk bu ñaareel ba mooy mbind mi daa war a rafet mbind mu rafet dafa am ay nattukaay dafa am ay norme yu ñuy xam ne diw mbindam mi rafet na ba ca des mooy alquran bokkut ak li ñuy wax alqawaid al imlaiya ni ñuy làkke arab nga dicté dit mu bind grameer bi naxu bi lépp sarfu bi ñëw loolu alquran du ci tënku ndax alquran tawqiif yi la léppam ni mel noonu la wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba egsi ci ñun amul soppi kon loolu maayir yi nga xam ne mooy wane ne lii kat dëppoon ak alquran loolu ñu tuddee ko ar rasbul usmaani yi kon dañ naan téeméeri point lañ ñuy laaj mutasaabiq bi téeméeri point yooyu fanweer yi day jëm ci mbind mu rafet fanweer yi day jëm ci mokkal gi wala mokkal gi mbind mu rafet day am ñeent fukki point arasbul usmaan yi am fanweeri point mokkal gi am fanweeri point muy téeméer su boobaa kii bokk ci liggéey boobu dañ ko naan dangay bind aw xët benn page boo xam ne da koy bind mboolem Sénégal nag ku fi bind am na fooy déposé mbind moomu bu ñu defee collect bi dajale ko def dépouillement bi xool comité scientifique bi jury bi toog natt ci nattukaay yi nga xam ne moom lañ moom la ñuy bëgg a wax nattukaay yi nag mënee sut a tudd lépp ndax buñ nee bind mu rafet araf wu ci nekk boo ko xoolee da nga xam ne araf wi lim tudd nim tudd ak nim fi mu tëdd noonu la war a mën a demee ci misaal boo bindoon yastabshiruuna raa gi ak waaw gi ak nuun gi niñ war a uufantee loolu dafa am ay normes yoo xam ne su ko wuutalee dañuy xam ne ko moom mii wàcc na yoon wi bu fekkee dafa bindoon muslimuuna wala leen ñu gis ne miim gi dafa gëmm dañ naan gëmm googu mu gëmm kon wërta gëmm dañ ko koy jàppe dana am lu mu wàññi bu fekkee nag ci mokkal gi la bu yàqee maaska wala mu jël baat wala mu tanwiin lu matuta tanwiin wala mu def leneen dañuy xam ne kon mokk gi dafa des dafa runge wala yu mel bu fekkee arrasmul usmaani yi la lu war a naar lu war a dog lu war a mbóore lu war a def leneen loolu ca lay ca lay ca lay ñëw su fekkente ne gis nañ ne loolu respecté na ko bu ci nekk nag tafasil muy détail yu baree bari la am yoo xam ne buñ ko jëloon moom kese di ko jàngale di ko wane dana jël temps bu bari kon dañuy tënk rek ne dañ leen a wutal ay nattukaay yoo xam ne comité bi moo ko taxawee beneen ñaareelu tomb bi ñu nekkoon kon ñu wër Sénégal pour sénégalais yi xam ne concours bii kat am na def nañ tour boo xam ne dem nañ maatam dem nañ Ranérou dem nañ Ouro Sogui dem nañ Ndar dem nañ kawlak dem nañ Jaamal dem nañ sookoon dem nañ piir dem nañ Ceneba dem nañ Njaasaan dem nañ Touba fasture Daarul Mooti Kokki fu ci nekk ñu dem fa ci daara yu mag yooyu wan xalaat bi waxleen leen liñ ci jublu ñoom ñëpp ñu rafetlu ko wane ne ñoom yëg nañ fiñ nekk ne seeni daara mokkal gaa ngi fi ak tari waaye mbind moom daaniki ñoom gisatuñ ko ñu dellusiwaat nag doog a tàmbali liggéey bi ci anam yi nga xam ne moom lañ tuddoon teg ma tax ki muy nattukaay yi ñuy évaluer mutasaabiq bi teg itam yoon yi nga xam ne ku ci bëgg a bokk moom nga ci bokkee loolu am na ci loolu dañ koy bàyyi ak président jury bi muy docteur Moustapha Diop Ndar su ci egsee euh, dana ko leeral waaye kon an nasul quraan yi muy yaxub alquran bi nga xam ne nag ci la liggéey bi nekk ci lañ bëgg a tënk tuuti yaxub alxuraan bi nga xam ne ci lañuy xame kii mën naa bind wala mënta bind mokkal na wala mokkalut muy mukawinaatu nassil quraani wa masaadiruha al mushaful usmaani yi buñ ko waxee lu tax ñu ne mushafu usmaan boroom xam-xam yi wax nañ ne loolu idaafatu tashrif la usmaan fi la fekk alquran waaye daf cee jëf liggéey boo xam ne ba léegi ay empreinte ma nga ca ay cati baaraamam ma nga ca moo tax tur wi des ci ndax xam ngeen ne dajale gi nga xam ne moom la dajale alquran daje gu mujj nga xam ne am na yu ko jiite woon daf cee defoon juróom benni copie maam dañoo bind alquran juróom benni kaamil yoo xam ne benn la commission bi ko bind benn la mu jël benn copie bi yóbbu ko Basra jël benn copie bi yóbbu ko Kuufa benn kóob bi ñu yóbbu ko Shaam benn bi ñu yóbbu ko Makka benn bi ñu yóbbu ko Madina bu juróom benneel bi moom mu nekk xalifatul muslimina mu yor ko loolu rekk dana wane wuute yi nga xam ne mooy am ci wàllug mbind lan moo ko waral lu tax mooy ginnaaw alxuraan indiwaalewul woon ay tomb tomb yi mi ngi fi ci tasawur waaye ci jëm mu nekku fi ay yax rek la woon yoo xam ne amul ay tomb amul ay masque amul sàdd amul suqi amul sumun amul rubu amul xisb kon buñ séddalee juróom-benn kaamil ci goxi àddina bi ci aw làkk ni muy évoluer ak ni ni ni làkkiin yi wuute bu ñu woon saalum ak jolof ak njaambur ak kajoor ku ci nekk xam nga ne seeni waxit bokkut da nga fee dem keene fa nga dem Saalum ñu ne faane nga dem fee ñu ne daane nga dem fee ñu ne damane te ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu wax te ay wolof lañ kon waxiinu araab yooyu wuute gi muy wuute dana jeexiital ci loo xam ne amul benn tomb bu ñu demee ba di ko tomb jamono dem ba yàgg ju maas ko jamono dem ba yàgg ju suqi ko jamono dem ba yàgg ñu wutal ko ay subun jamono dem ba yàgg ñu wutal ko ay rubu ay ahzab évolution boobu ci gox yu bokkut yi loolu dana indi numéro madaarisu rasm mooy école yi bind alquran yi ni nga xam ne noonu la école yi wuutee kon boo ñëwee ci li ñuy wax ak dapt xam nga yax baa ngi fi woon waaye dañuy maas alquran buñ koy maas am na benn téere bu ñuy wax arturaz ala doptel xaraas bu dee ci wàlluk daft kooku marjaa la ci muy maska loolu machaariqa yi bokkut ak waa sowwu waa penku ñoom loolu seen marjaa la ci wàlluk daft googu bu dee waa andalus ak waa magrib ñoom dañoo am seen tariqa xaasa boo xam ne ñun ñii ci lañu tënku am na benn jus boo xam ne ñi ji ñi gañe woon daaw am na ci kuñ ci bindloo mbind moomu sonn nañ ci topp nañ ko ci nattukaay bii nga xam ne moom lañ mujj a wax ci rasmu ak dabtu ak fawaasil ak eh, eh, ahzaab yi ak sajdaat yi ak saktaat yi ak wa wuquuf yi yooyu yëpp ci qaayida yooyu yi nga xam ne mooy bu maxaari ba bu andalus bi ci lañ ko tënku te nekk na ci benn eh, téere bu leer naa ñi kon dañu may junj ne waxtu liñ ma mayoon ci ay minutes euh, day bëgg a jeex wala dafa jeex waaye da ngeen cee limaale sama nuyoo xam naa moo tax mu jeex te waru leen ko ci woon a boole euh, su ko defee kon xam naa ñu jeexale ci waaw ñi nga xam ne ñoom laa war a si ci ñoom nga xam ne dama dama koo jëloon ci ndax oo jaala muy ñi nga xam ne ñooy comité scientifique bi nga xam ne dama leen a wan ginnaaw xëy na moo tax sëriñ Bachirou Diang ca Njaareem sëñ Alhaaji Njaay Cheikh Ndindi sëñ Alhaaji Jaxate sëriñ mamballa Balla Silla sëriñ Moustapha Gay moom tuddoon naa ko sëriñ Abdou Seck sëriñ Saalihu Silla tuddoon naa ko sëriñ Omar Silla ñii ñëpp ci comité scientifique bi lañ bokk mu doog a séddalikoo nag ñu ci nekk am na pàcc bu ñu leen dénk nga xam ne moom la ñuy liggéey ngir bu ñu noppee kii nga xam ne moom lañ doon xayma di nat ak mën a bindam buñ ko nee dangaa daanu dana xam li ko daaneel te buñ ko ko wanee bu ëllëgee loolu duutu ko daaneel la ca des nag ci ay leeral incha allah ki nga xam ne moo jiite jury bi sëriñ Moustapha Diop Ndar su ci egsee dana gën a leere foofa incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Xaadim Njaay mi moom moo jiite commission scientifique xaj na euh, li mu bëggoon na loolu waaye ngir xataayu waxtu yi rek moom moo tax ñuy njëkkanteeg moom alhamdulilah ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun